billahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi dal leen ak jàmm fii si Badar Gueye Badar nag teewaay bi tey li ko waral moo di guddik ganek àddina yonent bi alayhi salaatu wasalaam la màggal ñu gën koo xam fii si biir réew mi mu di gàmm tey jii nag dëppook altine ñaar fukki fan ak juróom benn si weeru novembre atum 2018 di bi nga xam ne moom lañuy amal gàmm gi fii ci Badar Gueye dan ngeen koy gis ci image yi mbooleem mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi jóge nañu ci gox yu feccantikoo ci biir réew mi ñoom ñëpp daje ci dëkk bu sell bii di Badar ngir màggal guddi gi tedd googu nga xam ne képp ku jullit war nga koo màggal ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba diglee ñu koy màggal ci sunna tax si moxoo bi sunnati noonu nag lañu koy amalee muy loo xamante ni bii daanaka xaaruñu rek guddi gi jot ngir ñu màggal bis bi waaye tamit li nga xam ne noonu lañ koy defee moo di ginnaaw bi ñu yewwoo ci bis bu tedd bi nga xam ne moo di bisu altine la ñu door daanaka li nga xam ne moo di liggéey bi yëpp taxawal bâche yi ñu jiital ko avant bis bi daaneel gàtt yi defar ko ngir mën a amal li nga xam ne moo di bernde yi waaye tamit ubbi lépp loo xamante ni bii moo di bernde bi sukkarin aw laxam yi maanaam lépp loo xam ne xeetu ñam la naan ak lekk bàyyiwuñu dara lépp la ñuy waajal ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ngir màggal guddi gi ñoom ñëpp ku nekk mën a xew fépp fa may nekk ci biir dëkk bi nga xam ne moo di Badar góor ay jigéen ay mag ay ndaw yu takku ñoom ñëpp kenn bëggu see des ginnaaw si màggal guddi gu tedd gi ñoom ñëpp takk seen digg takk seen laxasaay ànd ak waa dëkk bi ànd ak mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk si gox yu war dëkk bi ñoom ñëpp ngir guddi gi gën a mucc ayib sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëfe cheikhul xadim ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di sant ñëpp di am mbégte ci tàmbali sunu bis bi nga xam ne moom mooy gàmmu Badar Gueye kon tey ñii fii si Badar Gueye si gàmmu gi nga xam ne at mu ne dañ koy amal tey jii mu dëkkoo mu dëppoo ak altine 26 di nuyoo njëkk di ziar it xalif muy Sëñ Muntaxa Mbàkke di ñaan suñu borom yàgg ko fi loolu te wéru ko noonu dañ koy ñaanale it mboolem njabootu alxaaji sëriñ gi yëpp moom moomu ku tedd kooku yàlla na suñu taas ñu si barkeem ba yàlla na suñu borom yokki ay leeram te njaboot gi fi nekk euh, bu ñu limee sëñ Cheikhouna Guèye dana yóbbaale mboolem njaboot gi yëpp di la ñaanal tawféex di la ñaanal sutura di la jàmm comme ni nga xamee rek kon tey jii mooy gàmm gi incha allah bu ko defee di ñaan suñu borom ñu dugg si ak bisimilah rahmaani rahim nopp ca ak alhamdulilah rabbil am na nu njottu rafet si incha allah na mu daan demee rek lay demee waaye day gën a rek. foofa njot day gën a rek kawe njot kon di ñaanal ñëpp incha allah rabbi yàlla na nga fekkee ay at yu bare bare te saa yu ñëwee rek ñu gën a jëm kanam saa yu ñëwee di gën a kon nu jàpp daal gàmm gi tey incha allah rabbi bu ko defee kon lépp loo xam ne dana si xew incha allah dana ko dëppee suñu borom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh guddi tedd gi nag ni nga xamante ni bii noonu lañu koy màggalee at mu jot noonu lañu koy defee ren mu am lu am solo loo xamante ni bii it mooy particularité bi ci at mi ndaxte ñu ngi ko dara jaalee sëriñ Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni moo nekk xalifa bu njëkk ci sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba nekk ab tawam bu góor Cheikh Mouhamadou Moustapha moomu lañu ñu dara jaale bi la guddi. yaa li nga xam ne moo di ay siyaara si ki nga xamante ni bii moo di Serigne Cheikhouna Gueye nekk xalifa alaaji Serigne géey Badar fii si Badar noo nee la ko taalibe yi waree ñoom ñëpp ku nekk bëgg ñëw feddali kolereem feddali yéeneem waaye tamit jotal ab siyaaraam si sëriñ bi sunnati la Serigne Touba wax ñu màggale ko guddi gi waaye tamit ci sunna bokk na ci li nga xam ne moo di bernde ndax sëriñ bi sant bernde ak jaamu yàlla la digal taalibe yi fépp fu ñuy daje bi sukkarin aw laxam yi boobu moo xoon léegi biral nañ ko waaye tamit gën nañ koo fësal ci bernde yu yaatu yi nga xam ne gis ngeen ko mbokk yi waajal ko bëgg koo yaatal ba ñëpp jot a bi daal ñu ngi si sant Serigne Badara Gueye bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla yokki leeram te tax ñu si barkeem ndax lii moom lu mu daa wax la te ku yokk yëg te xam nañ ne gàmm bi yokku na ndax ban ko fii def benn waañ la du fi amoon tey noo ngi dem ba am juróomi waañ juróom benn waañ juróom ñaari waañ kon war nañoo santaat Serigne Badara géey bu baax a baax sant ak njabootam sant seexu naa Gueye xalifaam sant Cheikh Moustapha Gueye sant sëñ Fallou Gueye mi nga xam ne mooy suñu xalifaam waaye Serigne Gueye Badar soppe Cheikh Abdou Lahad Mbacké waañ bi nag dara manqué wu ba ni danoo ndékki ba fii ne mënu noo jóg sax ñi ngi nii nag nekk ci añ bi ak yu baax yi rek di def ba mu baax maam faama nag moom mooy mooy géej mooy géej ñu ngi leen ziar di leen sargal seen bis pàpp alaaj Serigne Gueye bii njabootu Serigne Gueye nag ñu fi bàyyi yal na yàlla guddal seen fan guddal leen wér gu ndax jabar gi fi bàyyi macha di ñaanal sama xalifa nag sama xarit maam Fama Gueye di suñu soppee waañam bi dañ ci daj bu déwénee yàlla na am lu ko وسلم لم يروا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 hay la laafaal buuru jaam ñi laa ilaa ilallaaw mbir mu jub ak faju wér ak wér le mucc gu ànd xéwal ko borom bi defal barke borom Tuubaa sa baay di fi dagg buumi gàcce yi wallaahi yaa ngi buumi gàcce yi wallaahi wallaahi li nga bëgg yal na la ko yàlla sa mi ngi moo tax ma ne dinaa Euh, li soxna si wax moom rek ay dëgg lii dafay nekk loo xam ni lu wér a wér a wér yàllay kese la yàlla yàllay kese la ndax la mu mujjee wax fii ci néegam bii day man day sama bis bi kër rekk a ma jaaxal sama bis bi képp ma jaaxal waaye lii de ña fekk woon wax wow wax jooju démb ak ñi fekkee wax di wax ji dégg démb tey xam ne lii yàlla kese la te dala ko jaral nga bàyyi lépp dëgmal yàlla sa borom dëgmal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dëgmal dëgmal dëgmal cheikhul xadim xam ni yàlla rek rek rek rek moo moo jar a jox sa bopp te loolu nga def géey nun day siggil nga nu siggil nga nu siggil nga nu bëgg ndax li soxna si wax nee na la saf ka ko macc rekk ko xam waaye ñi ñam ñi ñam démb ñam tey xam na ni ah xam nañ ne ah am na am na ak yokkute ñi ñam démb ñam tey xam nañ ni ak yokkute am na ak yokkute am na ak yokkute am na ak yokkute am na te di nga fi yàgg di fi yàgg sax yàgg sa yàgg say rakk ak njaboot gépp ak taalibe yi nun day siggil nga nu siggil nga nu siggil nga nu lool siggil nga nu lool ndax ñu xam ñi ñi dégg démb xam démb xam tey dégg tey ah nun de bëgg nañu bëgg nañu lool géey bëgg nañu lool ndax ñi ñun ñi ñam démb day ñam tey day xam nañ ne ak yokkute am na waaw xam nañ ne ak yokkute am na ñu ngi lay ñaanal sa fan gudd ñu ngi lay ñaanal yàlla fan wi gudd li nga yéenee liggéey sa baay bi ci dëkk bii ak ci yoon wii yàlla na kawe sa njor bi jaay Cheikhul Khadim sant nañ bu baax a baax a baax a baax sant nañ bu baax géey dëkk baa ngoog ku fi wet yàlla danga ko am waaw dëkk baa ngoog ku fi uti yàlla rek danga ko am waaw ndax xam gi nga xam ni yàllaa ngi fi moo tax nga jox sa lépp yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci turu Serigne Cheikhouna Gueye mi ngi leen di nuyu tëj leen ziyaara yéen waa daayira bi nga xam ni at mu jot ngeen ñëw fekk ko fii ci bërëb bu tedd bii di Badar jébbal ko seenu liggéey loolu nag moo leen ci sant bu baax tëj leen ci gërëm. ci njiitu sëriñ ñoom Ousmane Ndiaye mi nga xam ne mooy jëriñ ji liggéey bi nag liggéey bu yàgg la boo xam ni waajuram ngeen ko àndal muy alxaaji sëriñ Guèye fu mu a nekk rek yéen ci wetam lëmb gi itam ca ngeen nekk sëriñ bi jugee fi waaye tànk yooyu ngeen àndi woon ak moom ak doxin woowu ngeen àndi woon ak moom da ngeen a gën a yokk seen laxasaay yokk seen jom bootu ci ginnaaw sëriñ naa sëriñ bi nag gis na loolu lépp. Euh, di leen gën a ñaanal liggéey bi nga xam ne yéen ci itam euh, ngeen gën ce bay waaru gën a yaatu sëriñ bi ne ngeen ko xamee li fi sëriñ bi bàyyi woon rek moo ko ñor muy dëkkam bi ak jumaa ji ak daara ji euh, kenn ku ne gis nga ni bay na ci waar woo xam ne kawe na njort yéen itam ngeen laxasu ci ginnaaw ànd ak moom fam nekk rek fa leen woo ndax bi ngeen indee addee ji booba ab lim la daan doon ci xaalis ngeen jox ko waaye li nga xam ne daara ji moo ko ñor leen wax ni. bu at mi jotatee ngeen bool li ngeen yor def ko ci daara ji te loolu jàpp naa yombul ci sëriñ ci jamono ji waaye moom njuba ko ñor daara jee ko ñor euh, jumaa ji dëkk bi kenn ku nekk nag gis nga ni jamono ju nekk mi ngi ci def ay jéego moom kon bu leen gisee ci kanamam dana gën a dalal xelam kon daal wax ji du gudd mi ngi leen sant bu baax a baax sant gi nag di boole di leen soññ ndax jamono ju nekk bu leen dikkee ci dëkk bi gis mu soññ leen soññ goo xam du wax ndax bu jëfee tey benn bu ngeen gis mu jëf fukk yoo xam ni laaju ci euh, addiyee taalibe wóotewu ci kenn waaye la man la ci def lool nag ab soññ la ci ñun taalibe yi ñuy gën a yokk suñu jom ci moom di gën a yokk suñu liggéey ci moom sëñ bi ñu ngi lay ñaanal baax suñu woon gën a guddal sa fan di ñaanal nga xam ne itam jamono ju ne ñuy laxasaay di ànd ak yéen itam bëgg yéen ko ci dëkk bi daal moom ni mu ko waxee rek alaaji sëriñ gi lay liggéeyal moom yéen itam ngeen liggéeyal alaaji sëriñ gi kon jëwriñ la ci yéen rek bu leen gisee ngeen doxan ci doxan woowu nag di leen sant te di leen gën a jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu axnaani yallaahu rabbul jinni wal bashari hani ana wal aza bi shukri wal bashari amaani ne lañ ko bëgg a yaatalee fépp foo dugg ci biir dëkk bi di nga fekk bernde yaatu fa lool ba ñëpp man see jotandi ngir bis bi gën a mucc ay maa jógee Guédiawaye Dakar di dox leen nit ñi muy sunu dëkkandoo di sunu maire baax moo waral sunu teewaay fii ak sëñ Seexuna Guèye mi sunu xalifa di xalifa baay di sunu lépp nag moom tamit Guèye moo waral ñu ñëpp ñu def sunu déplacement def sunu déplacement ñu ñëpp ñëw ci sëñ Seexuna Guèye xalifa bi di sunu xalifa yàlla na fi yàgg lool nag te ñu ngi fii ci waañam ci waa waañu sëñ seexu naa ba ba tey dem ba tey ñu ngi fi dara jeexul nag ñu ngi ci wax wi dara jeexu fi dëgg yàlla dara jeexul ganaar la nekk macha allah daal dara jeexu fi géy badar moom géy ñàkk fee ñëw sax wóoru nag barke sëñ Fàllu Mbàkke ñàkk fee ñëw sax wóoru badar ku dund ba dee te ñëwoo badar wacc ko salfa badar rek moo jara ñëw na géy waaw sunu bàyyi ba nag alaaji sëriñ géy doon nit ku baax nag doon nit ku baax géy sunu kër yi taqaloo muy nit ku baax di sunu papa yal na xippe ci àjjana ji parce que Serigne Gueye ku mu dëkk rek dugal na la ci diine yóbbu na la ci diine xëccal na la ci diine dimbali na la ci diine te yàlla kese rek tax na lu ne nag lu nu nit di xalaat ci dëkkandoom ci jéemal ko ci yoonu sëñ Touba ci dëkkandoom ci defal ko lu baax parce que Serigne Gueye sunu baay ba defal nanu ko seet naa ñëw na kenn duma ko dàq Moustapha Gueye ñëw na kenn duma ko dàq ñu ñu ànd ak Astou nag mu ñëw fii ci waañ yi moom itam Guèye Ndiora di nit ko baax soxna Astou Gawane di nit ko baax Guèye boobu ba tey moom itam dara jeexul am jom lool nag di daw rek na Guèye di daw rek bëgg ndam rek bëgg ndam badar tan badar moom day am ndam. tubaarkàlla macha allah nee naa yoonu suñ Touba amul tànk gannaaw tànk kanam la te surtout ma rawatina nag bis bi nga xam ne dañu ko tuddee sëñ Modou Moustapha taawu sëñ Touba moo njëkk a fondement njëkk a raax sëñ naa nag dañu koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal yàlla fa góor ga tegoon tànkam dafa la teg tànkam nag kon gudd fan nag lañ koy ñaan ko ànd ak xéewal ak barke ci kàttan yàlla moo ki rakkam ak i magam الكتاب القبل إدا والبهورة فايدة للذي يحبكم التوحيد بي والقناعة والبحور حائدا في مدارا أنت أنسي لا وجعل العبد أنت أسني لا إله إلا جمرا دواما لغاي سناء أبي أنت أنتي الرجاء دواما جاءتني لإلى إسراء وجرا دواما دواما جار دواما ذكر الظلم على ليس sëñ Moussa ne ko mënees naa defar bant jumtu ñu jéggal la mënees naa defar weñ jumtu ñu jéggal ñu jéggal la mënees waaye ñu boole la ak aw nit nga juum kenn du la ko jéggal sëñ fi teew nga fekk leen asaka la ne ko te ñoom a lépp ci jikkoy sëñ Moussa mi Baye Serigne yàlla yàlla dolli ko leer tabarkeel ko njabootam tabarkal la teg ne leen ci yoon duñ benn duñ ñaar yàlla gën a yàqu waaye Moussa ji comme tax na ku jub bu ne leen foo jëm da naan yow xam bëggoon tuuti dooñu ci dimbale ñu xam ko ak leneen lu ñu ci fàttali bu ko defee kenn ku ne ci ñun boo fi jugee boo ne woon gàmm war laa jógee lii laa ko jële ci kër yi Moustapha kon ñun ñëpp ñu bokk teewlu kaddu siyam si Mbàkke moom siyam bi laxat moom Cheikh Al Khadim Khadim الله بالمناجهات وأبدا أخنا يدينات سان إلهي بالمناجهات وابدا اخنا يدي عناتي سان الهي بالمناجات وابدا اخنا يدي عناتي وعليكم ورحمه الله taala wa barakaatuhu nee na kenn ku nekk mu lay nuyu waaye wax ci du gudd ñu war a wax ci sëñ Moussa wax nañ ko sànq nee na li ñu war a wax ci Cheikh Mouhamadou Moussa mi nee na wax nañ ko sànq xanaa yéen ñi nga xam ne da leen a jaboot rek mu ne xanaa yéen ñi nga xamante ne daf leen a jaboote rek. ñu dénk leen tuuti rek. nee na mu dénk leen tuuti rek. kilifa yàllaa koy tànn. nee na kilifa yàllaa koy tànn. su la ko tànnalee nag. nee na su la ko tànnalee nag. loo ca fekk na la neex. lépp loo ca fekk rek na la neex. ak lu mën a doon. nee na ak lu mën a doon. waaye nag yéen war ngeen a sant. nee waaye nag yéen ñii ñun ñii war nañoo sant. ndax kilifa gi leen yàlla tànnal muy sëñ Moussa mi. ndax kilifa gii yàlla tànn mu sëñ Moustapha mi ku xam la nee na ku xam la ku xàmmee la nee na ku xàmmee la ku ràññee la nee na itam ku ràññee la te xam na fa mu jëm nee na te itam xam na fa mu jëm te yaakaar naa ku lonk ci moom nee na te yaakaar na ku lonk ci moom dana la yóbbu fa mu jëm dana la yóbbu fa mu jëm te boo àggee nee te boo àggee da nga teeri da nga am ndam da nga tedd te da nga am ndam da nga teeri da nga am ndam da te da nga am ndam ndax kat nee na ndax kat suñu borom yoon wi da koo rëdd mu leer nañ ne nee na suñu borom subhaanahu wa taala yoon wi da koo rëdd mu leer nañ mooy yoon wu jub bi muy yoon wu jub bi bi nga xam ne ku ci jaar yoon yi nga xam ne ku ca jaar mucc mucc waa dal mucc yoon nag ba dégg jamoon sa baay wala sa maam jam la ba dégg jamoon sa baay wala sa maam jam la da ngaa war a sant xam ne yaa ngi ci yoon wa da ngaa war a sant xam ne yaa ngi ca yoon wa Moustapha dëkk bi dëkku jaamu yàlla la nee na sëñ Moustapha dëkk bii dëkku jaamu yàlla la dëkku liggéeyut la itam. nee na dëkk bii dëkkub liggéey la itam. ndokk ba nga jàngee ba xam. nee na ndokk ba nga jàngee ba xam. nangoo liggéey. nangoo liggéey. wàcc taax ya. wàcc taax ya. wàcc mbumbaay ma. wàcc mbumbaay ma yow nag. nee na yow nag suñu Moussa. fii sa maam sañcoon. fii sa maam sañcoon. sa baay nekkoon fi fi liggéey Sëriñ Tuubaa. sa baay nekkoon fa di jaamu yàlla di liggéey Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul. soo fi boo fi dellusee ànd ak njaboot gi. kon ñun suñu suñu xel day dal. nee na kon ñun suñu xel dafay dal. suñu yaakaar day dolliku. CMC nee na yaakaaram dafay te it gis naa ni ne te it gis na ni diine nga def sab tool nga di ci xëy di ci gont diine nga def sab tool di ci xëy te di ci gont te loolu ku xëy ci diine di ci diine te loolee ku xëy di ci gont nag ci toolu Serigne Touba nga xëy di ci ci toolu Serigne Touba ngay xëy di ku ko xëyal mu añal tey ëllëg nee na ko kii di Serigne Touba Xaadimu Rasuul képp ku xëyal dana la añal dana la reeral kon nag yàlla na la añal yàlla na la reeral nee na kon Serigne Moustapha Serigne Touba yàlla na la añal yàlla na la reeral yàgg mbooloo mi nga àndal ñëpp yàgg mbooloo mi nga àndal ñëpp li nga yéene ci ñoom nee na lépp li nga yéene ci ñoom yàlla na nga ci am lu kawe sa njort yàlla na nga ci am lu kawe sa njort ñoom itam li ñu yéene ci yow nee na ñoom itam lépp lu ñu yéene ci yow yàlla nañ ci am am lu kawe seen njort li ngeen yéene am lu kawe seen bala ay bamba yaa jar di di gontu ba far dee ba defal yàlla lépp lam bamba yaa jar di xëy di ba far dee gontu ba far dee defal bala ay sa yaa defal Mustafa la xaw suyatan di xayrul xadimi fi diwaana defal Mustafa la xusiyatano di xayrul xadimi fi diwaana yow gërëm loo nga yàlla ca gërëm loo walaay yow yaay waane gërëm waaw moom de bis bi moom bisub taw la rek bis bi moom li ci ëmb dafa bari eh, waxuma la sëñ Moudou Moussa biñ ko tuddee waaye pas-pas bi taxawal bis bi te mu jóge ci rijaalullahi di sëriñ Gueye borom Badara bokk na ci ñi nga xam ni lu ñu taxawal yàlla nangu ko suñu waxu démb mooy suñu waxi tey mooy suñu waxi ëllëg euh, bis la boo xam ne taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi siyaadil minnati li muxlisil maachimi foofu rek la la la def participation moom it dafa teel a dégg inna allaha wa malaayikatu yusalluuna ala nabi yaa alladiina aamanu sallu te mu teel a dégg mu dégg aaya boobu moom ah bis boobu nag ci bis bi la dugg Euh, euh, euh, def participation ci rasulullah sallallahu alayhi di ko jaar ci di wasila bi Cheikhul Khadim moo tax Alaaji Sëriñ gi taxal bis bi fii nga ñu fekk ñu toog nag pàkk bu sell la pakk bu ñu ormal la ñu am yéene ñëw ci at bu jot di ko ànd xalifaam bi Sëriñ Cheikhouna Guèye gis nañ taxawaayam gis nañ pas-pasam ak soxna Ami Guèye seen taxawaay ak njaboot gi yëpp kon bis bi wax naa ne bisu paju aajo la aajo waay am te yittewoo ko te soxla ko bis man na ko faj kon bis bi ñun dañoo ñëw ànd ceeg mbokki talibe yi ak mbokk ci jullit yi ndax ku xam jàmbaar jooju xam pas-pasam man dara yéemuma ci sëñ bi Badar lenn yéemuma ci moom lu dool xol ba mu jox sëñ Bamba rek ñun xencuwuñu lenn gisuñu lenn xol ba fa mu teg sëñ Bamba gisuma ku ko fa ëpp ku ko ku ko kon foofu lañ ko yége foofu lañ yëgee ku mel ni moom kon bis bi bis la boo xam ni mi ngi si fay coup day faj lépp nit ki nag buy jóg di tàbbi ci yenn béréb yi di dem nay jël aajoom ak yitteem ak yitteem di ko dugal ci biir yooyu ndax bis booy jóg bul jóg rek ci nii da ngay jóg ngir sa yittey bopp ak sa yitte yu bopp yitte ak yitte bokkul yitte yi mooy yi nga soxla yitte yi mooy ne ci yow te ay ayib nga fas caa defaru ndax defar rek am solo te bis yi bokk na ci li bisa li defar nit kon saa bu jotee dina ànd ñëw laaj ma man Cheikh Moustapha borom tawféex ma wax ko li nga xam ne moom laa xam ci bis bi sama bisu baay la sama bisu sëriñ la sama bisu xarit la ma and kook samay rakk di màggal ak ñoom bis bi ngir jëmi Cheikhul Khadim lii daal mooy sama participation bis bi kon hamdan ni rabbi xayran mu rabbi ma xalbi bi lees ci deexi lahu shukuri bila kufuri wa nashiru minu fidayi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf fi likulli man biya qad sakana الذي لا لخير راكنا من بدون Thank you.

حتى الطويل والجوع والبيريا man daal sa mag ju baax ji nga xam ne sa lépp danga koo soxal ci moom moo yëkkati ay kaddu taxawel na le man laa di sant Seex Amsatu Mbàkke moom Seex Abdu Lahat Seex Amsatu bale sa ñu ngi lay sant baax boole ak di la ñaanal suñu borom doon la fee yàggal ba yéene ji nga am ci liggéey si Abdoulaye yéene ji nga am ci liggéey ko sëñ Tuubaa yow ay pro njas ànd ko taalibe yi bàtti suñu xol sedd na suñu xel dal na suñu yaakaar dooleeku na ndax amuñu ku dul kii te jëmm ji sa diggante ak moom day aju ma ku gaaw daf dox sangam bu baax bii nga xam ne moom lay sagoo xaritam di leppam ngir yàlla ak ami ami nee lool yég na ko ay bokk bi yëpp yëg na ko ami nee na xam na ko ay bokk bi xam na ko ami nee xam na bu baax fu ko féet ami nee na xam nga fi nga féete ay bokkam ami nee xam ne fi koy jàppale saa su ne ci waxtu ne ami nee na xam nga fi ko féete ba képp ku ne ku am ami sax am na la ngir yàlla ak sa baax dëkk bii doo fi gan waaye nag dëkk bii Mbàkke day taarix ndax li tax taarix mooy daa tàmbalee ci maam muy bii mi ko saj sëriñ Tuubaa gi samaam nee na dog na tànk wàll yi ba mu soyee ci maam muy fàddaw daa di wax ni ak a ma jamonoon teg moom su ma jamonoon teewoon ak moom dina ma dolli baa ma dolli ñëpp xam nañ tool fa kan la macha allah mbàkki kilifa li tax yàlla def la li la dafa maam ci doxi woo loolu yow ko yónni woon rek fii bu ñëwee. fii nga toog lañ ko jox xool fii lay toog te it nag Mbakke maanaam am nga ndaw tey li wér ci biir mooy maam ko yónni mu daw waaye da ngay sama diggante ak Adja Ami Guèye sama tànk boppam ci day nga jóg sa saw dal ànd ak mag xool mag ñu baax yii nga àndal sang ñu baax yii nga àndal dem mu jee toog gi sama sëriñ waaye ngay sëriñam maanaam loolu loolu kon loolu loolu moom mooy lam kee yaay sëriñam waaye mooy sama sëriñ naam Diop mbakki nga Diop def déplacement dérangement ci tàngoor wii te bi ngay ñëw laajte woo li tax laajte woo da nga xam te nga jëm fa mu doon gis nga am maanaam mën a jóg neex na waaye kam jëm jaral la daa dàq lépp te kii nga jëm dara jaral te kat xanaa ñu simbi rek simbi rek xale si bu yàlla yàlla ñu def والفسق والباطل في الدور mën a wax am ndox ko taw feex taw feex dëgg la barke borom Touba kenn du ko teg baaraam barke borom Touba dëgg la wallaahi barke borom barke borom Touba kenn du ko liggéeyi baaraam de آمنا وكل واجعل حريمنا حريمنا بنا حكم بيمني وفي لندى بنا ci dandamina di wax ko la وك فيها حل الآفات يا جليل مسكني وكلما كل كاملا داملا يلا خويا في سويا الامر كفائق الخلق ما في القار يا الأمر يا فائق الخلق نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبار ثم أعلي والولد ومسكني لك وديعة أبار نبي وكسا الدنيا ما أخرى بهما عن نذر في الرذايا كسا دنيا ما أخرايا بهما اضرب عذابنا ريحا جملة من جملة من قلبي يتعلق بالناي سمرا هل جملة من يتعلق بالناي سمرا واضرب عذابنا ريحا جملة Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn الدين والحجات بها الدين والحجات بها يا سماء تولني ولا تكلي للعالم dafa métti yàlla ñu koy jooy ba léegi ca kenn noppiwul tubarkalla taw bi njëkk a judd a baax muy soxna Aminta moo njëkk a judd moo njëkk a yoon yi ba xale yi baax ami baax na bëgg na ay rakam waa ay rakam bëgg nañ ko teg nañ ko place ci fii xam ne fi day géey nekk luy fur du ko bàyyi Touba luy galaas du ko bàyyi Touba luy luy luy xewal du a bàyyi Touba du bàyyi dara ba ca awar ga sax da ko indaale lépp nag buy ñëw yàlla ak baayam nan moo waral muy def loolu lépp ak diggante mag magam muy Aminta taaw muy seen yaay mu mat yaay lool nan li ñuy bëgg ci yaay lépp mi ngi ci Aminta am na yërmande baax na yaayu Cheikh la day jaaxaar ku ñëw nam boo nampee pare dem du wonk du ñayu mooy soxna Aminta ma koy ñaanal ci kattanu yàlla ak yonent bi dëkku maamam bii maa ngi koy ñaanal ci kattanu yàlla ak yonent bi man maam Boussa Niang mii ci xaritam ci xolam yàlla jus moo koy indi at mu luy xaal moo fi indi xeet xeet yu baax yëpp moo ko indi na mu jox ko na daaw muy soxna Aminta Gueye mi seen yaay yor na di koy sëñ Cheikh Mbacke yor na ndaa tubarkallaaw ca ndeyu Cheikh jaaxaan lay def yëpp ci kawam kii Mousli Gueye mooy caat njëkk a juddu njëkk a baax. waaw loolu am na nga teg ca tubarkala ma daxar tamit maam jaara xuma mi ngi taxaw mi ngi toog dend ak yow. ñu bëgg ma lool nag waaw la ca waaw. boo la ca dañ koy jàppale. dañ koy jàppale kenn du ko fi la ca. kaddu gu am solo goo xam ne jar na màggal jar na it delloo njukkal sang bu tedd bi nga xam ne moo di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii di xaaj bu njëkk boo xam ne moom lañ leen jëlal fii si Badar Gueye si gàmm gu am solo goo xam te ni bii moom la ñuy amal ànd koog mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo fi teew. la leen Tawfekh Production jëlalee ci gàmmu Badar Gueye édition 2018 di leen jox dig daje ba déwén incha allah.